Saliou yow xam nga xam nga yow nee ndar kenn ko tabax ci benn fan. ma ne ko ndar bu jamonoy kolo. dëgg la man sarax la ma de. baal bu baax ñaari fan a yóbbu. nag démb euh, béy di añ ku ko xam-xam ni euh, pàcc bu ci am solo la woote woon doon ñëw ci li nga xam te moo aju ci les assises. Euh, de l'entreprise wax na ci li nga xam ne mooy reddition des comptes comme ni ko Nabou waxee ne am na solo waaye warul mën a jur aussi ñuy taxawal ay liggéey yoo xamante ne ay travaux mhm. ah, euh, public beeg privé bi euh, loolu mooy pàcc bi nga xamante ne feeñal nañ ko mais globalement li war a doon rapport diggante état ak ñi nga xamante ne ñooy les secteurs privé pour ne pas dire le patronat. Mm-hmm. waaw est-ce que mën nga ma jox exemple ci ci ci domaine yëpp rek nga gis fa nit ñu bees quoi ay ndaw wala yooyu. Ah. est-ce que mën nga ma mën nga ma jox mën nga ma jox benn misaal rek ci yi nga xam bu dee football. Mm. bu dee ñi yor wàllu ceeb bi. bu mm. dee ñi représenté baykat yi. Mm. bu dee làmb ji. bu dee patronat bi jox ma fa nit ñu bees maanaam c'est des champs yoo xam lobby yoo xam ne. depuis ay at ñoom ñoo nekk fii lobby yooyu. yooyu yëpp c'est des choses à lu leer laa lay wax nii même lobby yooyu. lobby yooyu ñoo fi ne benn minorité d'individu boo xam ne matuñu fukki nit clan boo dem clan la ñuy doon ñoom ñooy def ay affaire au nom de qui et de quoi bëgg xoj état gis nga réew mi chantage moo jeex ci réew mi te gis nga bu doon may le président de la et la premier ministre. Mhm. ñi nga tudd noonu na tey ci ñoom. et pourtant ñaar ci ay ministre gouvernement bi ñu muy fóon man waxantuwuma dama ne nañu euh, ministre Abdourahmane Sarr également. dama ne dem décliner également la vision du du gouvernement ci lu jëm ci nañu tey ci ñoom patronat patronat patronat patronat xam nga Sénégal day mel rek ñu naan la ay ingénieur mais fii je m'excuse je suis désolé mais li ci ëpp ay ingénieur que de nom la ñu am ingénieur que de nom hmm. ingénieur que de nom la ñu am ay ingénieur yoo xam ne bu ñu demee stade bi costume la ñuy sol takk ay verre suuf du leen laal doo leen gis ci terrain bi ay ingénieur këdd de nom gis nga ñi ñi yore patronat bi xaw ma man ban patronat lañu lañu lañu la ñu jiite mais mais dama la bëgg a wax ne gis nga gis nga yooyu yëpp muy te ñoom Macky Sall muy lobby yi ñu fi bàyyi nga xam ne ñooñu ñoo leen di représenter ci biir gouvernement bi di leen fa jox ay information di leen wax mbir yi nan la di gasal ndëgg sërëx état bi gis nga nee naa la boo demee Rufisque Tëngéej man li may wax làmbaatuwu ko de boo demee Rufisque Tëngéej fii parking malien ne garage malien nañu ku mu neex jëlal sa oto nga dem nga dugg tali bi dugg nii dem Rufisque am na ngandam garage bu ëpp sans limite am na kuy jaay ceeb ci réew mi fa lay dem ceeb bi dañ koy sotti. Hmm. sotti ba mu jeex mu dem defar ay saakoom solaat ko bind ci bindam dëwliñ bu ñëwee ñu wàññi ko def ko ci ay bidon li may wax lu ma làmbat dañ ma yóbbu bu ma gisal ko sama bopp te ñooñu bi ma xoolee waxtaan yi dama leen di. gis foofu wàññi saako bi. dañ koy wàññi. jëndal ceeb dama ne jëndal ceeb nga tekk si nga tekk si balance nga xool ndax buñ ne la vingt cinq kilos ndax mat na ko. mburu boo ko jënde mburu tekk ci balance nga xool la wax gis nga Sénégal foog ñu xoolante ci ay bët waxante dëgg gis nga lobby yooyu yëpp la ñu war a tas mooy exemple bi ma la jox sànq si espoor gis nga nit da ngay gore da ngay mën a génn sa loxo si ndab li te kenn du la toroxal nee naa la Aliou Cissé dafay defal Sénégal lu Sénégal mësta am lu Sénégal jombaloon boppam ñu koy jooy ay at ña gënoon sonn fekkewuñu ko Aliou Cissé téye équipe bi soo sooxox moom ba indi Coupe d'Afrique fii Sénégal ngeen gis après équipe bi fi mu mujjee maanaam gis nga nit da ngay am grandeur boo waree bàyyi dara nga bàyyi ko Macky sàll mii bu ñu ko forcé wul woon dóor ko ay kurpañ xeexam moom du jóge ci bopp réew mi parce que nit ku ñuul moo bëgg nguur patronat boo xam ne yow bi nga juddoo ba léegi même nit ñi ngay dégg ci patronat bi sport même nit ñi lamb même nit ñi boo xoolee agriculture man maa seetaan télé bi agriculture mbay mi Ousmane Sonko di wax ay militaires yi lañ ko def gis nga saal ba nit ña ne woon ca jamono yi Abdou Diouf jamono yi Ablaye Wade jamono yi même nit ñi nga gis ñu ne ñoo représenté baykat yi mais baykat bi nekk waalo kan moo ko représenté foofu baykat bi nekk Kaolack sa àll ba kan moo ko représenté donc dafa am benn minorité boo xam ne lu xew ñoom la état di woo ñu ne ñoom ñoo représenté ñooñu ñan la ñu représenté ay cinq nit dañu mën a représenter ay dix mille personne wala vingt mille personnes. Hmm. ñoo xam ne yëguñu l' existence de ces organisations là. patronat bay xam nga man man man man man bi ma taxawalee. jiite entreprise man bi ma taxawalee ASRED. avant may def dara xam nga lu ma njëkk def cinq ans cinq ans ba ba ba ba bi ak famille détenus yi xam ne bés ni tey am na association boo xam ne ñoom ñoo ko moom. mais beaucoup de choses existent dans ce pays alors que ñi mu concerné ñoom xamuñu ne sax la chose existe moo tax ma ne ñii nañu tey ci patronat. Hmm. tey ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te li may wax du lu ma waxantu. même perception mami. waaye pratiquement de wax dëgg yàlla c'est vrai que man moom je partage l'avis de Ibrahima Sall sur ce coup dama am envie sax man teral ko fu mu nekk nii ndax li mu wax nii dafa neex lool ci xol Atura naa de wax nga dëgg man de boobu ba léegi ñoom rek laay dégg de. c'est les mêmes têtes les mêmes personnes les mêmes cas les mêmes situations les mêmes problèmes et nga ne ko euh, ñooy directeur entreprise yi ñoom ñooy. employé waaw waaye nag waaye joxe joxe joxe xëy bi tamit. <laughs> yàlla bu la yàlla dox lu tuuti rek. boo demee entreprise yi nga xam ne ay étranger ñoo ko yor ci dëkk fii di defar ay meew ay jus xam nga sénégalais yi fay liggéey ay ñaat lañ leen di fay ay heure ay heure deux mille cinq cent trois mille ay chinois jël nañ fi ay sénégalais ñuy defar tali bi si jamono yu Ablaye Wade chinois yi di leen fay neuf mille cinq cent neuf mille cinq cent lañ doon doon fay quatre heures ñu wàcc benn ingénieur u moo ñëw ne chinois bi ñii li ñu leen di fay dafa bëri. Hmm. neuf mille cinq cent dafa bëri. wàññi ko def ko quatre mille cinq cent wala cinq mille. te sénégalais la de. ay sén waaye la méchanceté bi sénégalais am ci morom Sénégal gis nga Pël Fuuta boo doon jaay fii boo doon jaay fii dara moroomu Pël Fuutam di ko jaay trois cent moom ci moromam lay dem jëndi sénégalais. mooy bàyyi restaurant sénégalais dem añee restaurant chinois mais chinois doo ko mës fekk si restaurant sénégalais mami kon ne nga wax nii de eh, xaw ma lu ci nit di teg de mami ton micro s'il dëgg du wër pénga dina naqaree teggi mhm. dina naqaree teggi sàll sàll ngaari ndax li nga fi wax lépp tigi loolay dëgg <laughs> añ yàgg na fi keneen ki dimbali leen ma borom kóor ya <laughs> yàgg na fi ñoom ñëpp en fait et il a raison de dire que benn clic la te xoolal clic boobu nag euh, Pape Ousmane. il faut mu élargir. Mhm. renouveler te lenn rek moo ñu ci mën a dimbali. mooy ne état bi foog mu jublu ci wàllu industrialisation. annoncé na et ce secteur la patronal xawma noonu ko tuddee du Sénégal yooyu itam ñu élargir ko qu'il y ait de nouveaux jeunes entrepreneurs forts. te loolu il faut en donner la possibilité à la diaspora ñu intégré wu ci bu baax a baax ci yenn yi nga xamante ne c'est des créations d'entreprises allant dans le sens de créer des emplois ces chaînes de valeur là basées sur aujourd'hui li nga xam ne moom mooy la carte maîtresse de ce gouvernement en passant par le volet de l'agriculture hmm. nga xam ne c'est une chaîne boo xam ne chaîne de développement benn bu ci nekk à un certain niveau qui pourra aider à mieux ouvrir li nga xamante ne moom mooy ce secteur dit privé entre euh, parenthèses mais ñoom eux en fait ce sont les cuillères et les fourchettes d'or yi nekk ci dëkk bi bu nu waxantee dëgg ci ñoom la féetee ben clique la tu as l'impression que benn cercle d'amis la ñoom ñooy doxal li nga xamante ne moom mooy le secteur privé mais le secteur privé doit être beaucoup plus large que cela hmm. la possibilité aujourd'hui d'aller dans les créations d'emplois ça et dans la possibilité ñu mën a indi lu bees coppeeku maanaam ci marché yi ni nu koy joxe. Mm. ni nu koy distribuer mu bañ a bénéficier tout le temps aux mêmes personnes li Ibrahima Sall di wax et ça c'est archi xam nga dañ doon wax fii Momar Ndao Ascosen ne ko yow ba nga toogee seen ba tey donte seen moom nee na fayuñu ko ci dërëm. waaye ñii li ñuy liggéey dañuy employer certes des jeunes wala dañuy employer certes des emplois